بسم الله الرحمن الرحيم أنت الكريم أنا الخديم دار نديم فيك سنائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Khadim ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal lool gën a dolli ak wéram am nañ mbégte jotaat ndigal ci Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Salihu yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér Serigne Cheikh yëkkati ay kaddu jëmee ko ci sant mbooleem njabootu Serigne Touba gépp nag tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy jëwriñ yoon wi. di sant mbooleem seex si nga xam ne ñoo aju ci kër Serigne Touba a sol ñoom ñëpp di leen tàllalaat loxo nag ci liggéey bii nga xamante ne bii dana ko ànd ak ñoom ñi di ko ci jàppale incha allahu rabbi liggéey boobu nag moom la ñuy waajalaat sëriñ bi nee na mu jiital ci woote bi ñii nga xam ne ay bokkam lañ te ànd ak ñoom ci liggéey bi ngir yàlla ak jëmi yonent bi ak jëmi sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mu ciy jiital sëriñ Abo Mouhamed Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun Mbacke Daaru Salaam sëriñ Cheikh Anta Mbacke xalifa sëriñ Modou Roqe Daaru Salaam sëriñ Moustapha Mbacke xalifa sëriñ Abdoul sëriñ Salihu Mbacke ibnu sëriñ Ibra Ndar sëriñ Salihu Mbacke moom sëriñ Mourou Boussa Dieng sëriñ Salihu Mbacke moom Alhaji Mouhamadou Lamine Baara sëriñ Khadim Mbacke moom sëriñ Abdoul Fatah Falilou sëriñ Abdou Mbacke moom sëriñ Ibra Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ Mourtada Mbacke moom sëriñ Abdoul Fatah moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ Salihu Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ Salihu Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Chouaibou sëriñ Abo Mbacke moom sëriñ Cheikh Fati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 sëriñ Sam Diop ak mboolem njabootu sëriñ Masamba Diop Sam gépp sëriñ Abdoulahi Camara Dakar soxna Ndey Diaw Njaañ sëriñ Ousseynou Kane Dakaru sëriñ Cheikh Sam Diop sëriñ Souaibou Sarr Jasaaka moom Baye sëriñ Sarr sëriñ Khadim Gaye Lawsat sëriñ Mahmoudan Diop moom sëriñ Naar Diop sëriñ Khadim Touré imam sëriñ Salihu Dieng moom sëriñ Abdoul Karim sëriñ Mor Jaxate Daaru Jaxate sëriñ Khadim Sugu sëriñ Mor Cissé moom sëñ Ibrahima Cissé Thiawén sëriñ Mbacke Ka moom sëriñ Salihu moom sëñ Moussa Ka sëriñ Abdou Samad Diouf moom sëñ Thierno Diouf sëriñ Thierno Diouf Mbour sëriñ Moustapha Diouf ak sëriñ Abdoulahat Ndiaye Xewar sëriñ Fallou Ndiaye Xewar sëriñ Mbacke Ndiaye Xewar. ba tey sëriñ baa ngi ko yëgal sëriñ Jile Touré Mourid Sadikh nekk te Dakar ak mboolem ñu moo àndal ñëpp. sëriñ Salihu Ka Yaañ Ka alhaji Maam Balle Bey Ndamatu sëriñ Abdou mbaay Mbaye Pire ak waa Sañaxoor gépp Serigne Saliou Dia moom Serigne Mor Dia Njar Serigne Mor Moussa Diagne Mbagam daayira saxaw gi Serigne Dan Dieye ak Serigne Saliou Ka daayira Teyeri Touba Serigne Baara Ndiaye ak Serigne Bay sar daayira Teyeri Dakar Serigne Moustapha Sène daayira Masongi Touba Serigne Mor Gaye ak Serigne Atou Cissé daayira Tunjaareem Serigne mbay Jaxate ak Serigne Cheikh Jenn daayira soppi Serigne Saliou yëpp nag xidmatul xadim safoori Mbacke Touba mécanicien Mbacke Touba ak li ko mécanicien Mbacke Touba ak li ko wër Serigne Cheikh Lo président de groupement transporteur yi benn Touba daayira soxna Fati Jaxate soxna Khady Ndiaye Serigne Sambay président regroupement safori benn Touba. Serigne bi nee na ba tey mi ngi ciy soññi ñi nga xamante ne bi ñoo daan jàpp ci liggéey bi ci wàllu oto yi di ci jiital nag El mbay Mbaye Touré di ñaan sun borom doole xéwalam Serigne Abdoulahad Ndiaye Ndakaaru Serigne Cheikh Gueye Mbana seriñ xaban an campement Serigne Abdoulahad Ka maire Touba di ko yëgal Serigne Thierno John Ngoya Alhaji Saliou Sène Bambey Séréer ba tey nag ñu Serigne bi wax ne liggéey bii kat ni mu demee ñu ngi koy fàttali. daayira Miftaahu Nasri Serigne Cheikhou Ndiaye Cheikhouna Ndiaye jiitu ko ca Petersen Serigne bi nee na mi ngi koy yëgal ñëpp nag di xam ne liggéey bii nag mi ngi ciy sàkku suñu borom defal ak njëggal ak yërmande Serigne Modou Mbacke. daaru moxti yàlla na ko sun borom doole ay xéewal ak yermande di ci fàttali ko waale ci ay ñaan nag bëgg ñu ñaanal ko ko doomam di jëwriñam di jëwriñu liggéey bi di alhaaji Cheikh Amar Tees sëriñ bi nee mi ngi koy ñaanal sun borom doole ko ak wér nañ xam ne liggéey bi lépp ci loxoom la ko tegaat mu jiitu ko nam ko daan jiitee sëriñ baa ngi ciy soññ ñëpp nag di ñaan képp koo xamante ne bii dem nga xel koom ajjuma fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu yemoo ak le 22 octobre incha allahu rabbi sëriñ bi nee na mi ngi ñaan képp ku dem xel koom moo xam nga dagg fa aw gub wala nga dajale fa aw gub wala nga jox fa nit lu mu naan yàlla na ko sun borom defal sa njëgalu àdduna ak goog alaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu lakin unaadi kulal hibaadi ilahi maadi bila jalayi ya ahla barri يا أهل باري هجولي بري باري سخاي